sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ci ndigalu cheikh mouhamadou mountakha mi nga xam moo fi sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ba mboolem naa yi nga xam ne am na ko ci sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ak muy kàddu yu nuyoo ak kàddu yi ak kàddu ñaan jëme ko ci mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha te ki nekk ci bopp bi di kilifa kër gi yëpp di sëriñ Ahmadou Muxtaar ñuy ñaan mu yàgg fi moom it ànd ak wér di ko teg ci loxal doomam sëriñ Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moo itam sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak bi ba mu yàgg jiite njaboot gi ak kër gi ba mboolem naa di kilifam ya ko jëkkoon yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi nuyu sëriñ Abdourahmane ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp rawatina nag njabootuk sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax moom mi fi sëriñ Touba dafa yili fi yoon muur yépp waaye dina da ci am ñaari cër ndax doon gëm doon kilifa képp ku yaakaar sëriñ Touba waaye diggante Cheikh Mouhamadou mustafa ak Cheikh Mouhamadou Bachir ginnaaw buñ bokkee sëriñ Touba ci boppam sëriñ Touba moo leen boole woon boole Serigne Touba nag moo tax nii rekk lay mën a deme diggante Cheikh mu Mountakha ak Serigne seex ñu bari ku xam histoire ku ne xam nga seen diggante ndax ñoo bokk mu Cheikh Mouhamadou Moussa ak Cheikh Mouhamadou Bassir waaye ñoo bokkaat ci wetu kokk yi lépp ba ci néegu bëggit bi ñoo ko bokk kon seen diggante lu xóot la lu rattax lu yaatu kon lépp lu ñuy defal Serigne Cheikh Cheikh Mouhamadou taxaa kenn waru ko ca jiitu ndax ku ne xam ne sëriñ Cheikh xalaatam ak yitteem ju kawe waaye akuk dëggam dëggoom kum dem ba seeree la ay kàddu rek ca yooyu jamono te boobu xam ngeen ne li doxoon seen diggante ñoom ñaar bari na lool. waaye seereel na ko lu bare bari kon nag loolu lu kàddu yooyu rek laa am ci lu ci yëkkati waaw <laughs> kon seen diggante ñoom ñaar muy diggante Cheikh Mouhamadou Mountakha ak Serigne seex noonu la demee ñoo bokk lépp waaye wëlbatikoon mu nekkoon xaritam lool Cheikh Mouhamadou Mountakha daay fi ñëw lu bari ba nettali na sa wax ne bi muy njëkk a siyaare ji Serigne Souhaïbou boobu moo Serigne Cheikh ñoo fa ànd ñaari ci la ko Serigne Souhaïbou njëkk a gisee fekk Serigne Souhaïbou dafay dafay dafay yónnee ne ko dama ko dama koo soxla dama faa bëgg ñëw nee na Serigne Cheikh ne ko nee ko na ma lig dinaa fa ñëw.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 sëriñ Aliou dégg nañ kàddu yi mu wax ndax moom rek firndali si ndax moom lañu ko tudde waaye moo ko yar moo ko moo ko formé noonu moo ko bari ci biir yoon wi ba tax boo doon xool biir réew bari yu mag ci wàllu xam-xam ci biir réew ci fànn gu ne nag ne jaar nañ ci école suñu Cheikh ba mel nii kon loolu résultat résultat bu rëy rëy la ay yéemi nag maa ngi koy wax daxaat fii mooy jaar ci école suñu Cheikh na ko fii àdduna toll léegi dabu ci burum jàng mottalil ko naalam yu rëy yooyu kii nag xam-xam dafa yàgg lu kii la loo xam ne lu jafe la ndax xam ngeen njëkk a wuutu Serigne Touba ak boo fi àdduna toll fii xat-xat toll yoonu mu de taxawagut nga war a taxaw jëkk waaye sa ñàkk jot ndax li nga yilif dafa bari ndax booba ñi doon kiilifa ci biir yoon yi ñëpp Serigne Touba defar lañ ba gisatuñ dara moo fees dell biir yoon wi muy ñoo xam ne mënuñoo topp ci ginnaaw kenn. ñooñu la jamonoon teel booleeg tubaab yi ne fi doon jéem ci sëriñ bi tëli ci moom war a mu war a jéem a lijjanti nag taxawal yoon wi jàmmarloog tubaab yi cim xel ba taxawal yoon murit ba yoon wi ak si fii tey ci biir lool la muy xat-xat muy taxawal yoon wi di tàggat seex si jabootug suñ tubaab gépp mu leen di tàggat di leen forme ku ci toll ci war a taxaw mu yóbbule ci barab samp fa ni mu ko defee ci ñu bëree bëri waaye teewut loolaal la muy xat xat xat fii ci biir Daaru Xudus wala kër gu mu mës nekk ci biir dëkk yi daana jàngale xam-xam ba am na ci lenn ci ay rakkam bu ma juum Cheikh Mouhamadou Mourtada ci la bokk ak lenn ci ay ci waa kër Sëriñ Tuubaa ñoo xam daan leen jàngal ak lenn ci ay doom kon loolu boole ko kon jafe na kon day mel ne Sëriñ Cheikh cër bi mu am ci xam-xam ba di ko dundal day mel ne foofu la tàmbalee. muy ndigal la leen Serigne Touba joxoon moo rakam ju tedd ji Cheikh Mahamadou Fadil kon nag ngir bañ a guddal ndax Serigne Cheikh ku duggoon di waxtaan ci moom doo xam fooy tàmbalee waaye doo xam fooy yam ndax fànn fànn goo indi ci aw doxinam wala ab taxawaayam rek mën nga caa tàmbali ba guddi fekk ñu fi maa ngi jéggalu nag yeex a agsi gi ndax dafa fekkoon ma sori ndi nga dab ma ci yoon wi ma doon ñëw te yeex xam heure bi